Vous devez être vraiment sûr des risques que vous prenez et conscient de la désillusion qui vous attend lorsque vous vous lancez. Je suis fatigué, je pleure pour un rien. C'est toute une, une, une, fatigue psychologique qui va s'installer. Depuis on est en et jusqu'à présent, je n'ai aucun investissement, aucun financement, ni de l'État, ni de la banque. Non mais CEO, c'est vraiment Chief Excrement Officer en fait, quand on y pense. Tu gères Hey, hey, hey, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission favorite du jeudi soir. Bienvenue dans Cauchemar d'entrepreneur. Cette semaine, on va s'adresser à un entrepreneur, un serial entrepreneur. Il s'appelle Malik Tal et avec lui, on va parler d'argent. Vous le savez, vous qui m'écoutez dans cette émission chaque semaine, pour moi, le nerf de la guerre des entreprises, ça reste quand même l'argent. Et aujourd'hui, dans l'écosystème entrepreneurial au Sénégal, on le sait, on a très souvent peur d'argent, d'annoncer des gros montants, ne serait-ce que pour dire combien on gagne, combien on génère de chiffre d'affaires, et encore plus quand il s'agit de parler de levée de fonds, euh, combien c'est la clé. c'est la base parce que c'est seulement comme ça qu'on va réussir à prendre le pouls du dynamisme de l'écosystème, du dynamisme aussi des entreprises que nous créons ici au Sénégal. Et pour discuter de tout ça, aujourd'hui, j'ai donc choisi Malik, qui est un serial entrepreneur. Il en a ouvert des entreprises, mais surtout, il a investi dans plusieurs entreprises. Aujourd'hui, il est associé, entre autres, de Brick and Blocks, par exemple, de Coris, et il euh, pourrait lui-même nous en dire un peu plus. Malik Tal, bonsoir. Bonsoir Mariama, Bien, merci de m'inviter. Et, et, puis, euh, <laughs> merci pour cette présentation qui est géniale. Euh, <laughs> C'est un plaisir, Malik, de, t'avoir avec nous. Parle-nous un peu de toi déjà, parle-nous de ton parcours, Yo Dormi Fan. Euh, est-ce que ta as grandi, où est-ce que ta as fait tes études et en, quoi est-ce que tu commencé à travailler à la base euh, moi, moi, moi, du coup, moi, je suis Dakarois. Dakarois, mais Boytown, <laughs> original. Je suis né à la clinique Pasteur. <laughs> J'ai grandi immeuble Alpha à mètres de la clinique Pasteur. Et <laughs> je suis allé à l'école à franco-sénégalaise Djaljo. J'ai vécu en centre-ville de Dakar, dans ce carré-là. original. Boy Town, tout <laughs> plat. C'est exactement origi ça. Original. Et puis, ben, je suis resté au Sénégal euh, jusqu'après mon bac. J'ai fait les maristes. Et puis, je suis allé en France faire mes études. Et puis, je suis rentré. Et, Qu'est-ce que tu as étudié en France j'ai eu une scolarité assez bizarre. Euh, j'ai commencé en économie et gestion. Euh, donc j'ai fait un DUG. Ensuite, je suis allé en école de commerce à l'époque où le DUG existait encore. Voilà, <laughs> moi c'est très drôle. Parce que maintenant, je suis sûr que beaucoup de jeunes vont dire Mais c'est quoi ça <laughs> Je suis l'une des dernières générations du DUG. Et, puis, Voilà, et du coup, euh, ensuite, je suis allé en, école de commerce et j'ai fait une première année d'école de commerce en, euh, euh, en marketing, une deuxième année d'école de commerce en système d'information et une troisième année d'école de commerce en finance. Donc, j'ai un parcours un peu sinueux. Euh, <laughs> j'étais un élève très moyen. <laughs> Euh, et voilà, et, et je suis rentré tout de Tout de suite après, deux jours après la fin de mes études. Et, wow. Oui, et j'ai directement entrepris. Euh, j'ai rejoint By Alors... Ouais, directement. Alors, excuse te couper juste ici. Tu rentré en quelle année Et surtout, pourquoi est-ce que tu rentres tout de suite après Beaucoup de jeunes font le choix euh, de gagner un peu en expérience ou de rester d'abord à l'étranger. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui te motivait particulièrement à rentrer immédiatement au Sénégal euh, Non, pas particulièrement. C'était pas un choix. Euh, euh, ma vie est jalonnée, enfin j'imagine comme la vie de tout le monde, est jalonnée de, de euh, d'événements qui nous poussent à faire, euh, à, à, à, juste faire face. Et puis, euh, mais moi, c'est simplement que je venais de finir mes études, je devais faire un stage de fin d'études. J'avais trouvé un stage euh, en Arabie. et donc au final c'est le moment des révoltes arabes 2010-2011 donc, euh, le ministère de l'Éducation nationale français invalide tous les stages dans les pays un peu... Euh, euh, voilà, où donc on avait tiré sur la foule et je devais aller en Arabie Saoudite, il y avait des manifestations. C'était un peu dangereux. Et mhm. donc, euh, j'avais plus de stage. Par contre, je devais valider mon diplôme. Euh, et La chose la plus simple, c'était le Sénégal. Du coup, je suis rentré. Euh, et puis ouais. j'ai trouvé un stage ici à Dakar. Et puis ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré au Sénégal. Euh, j'ai fait le stage, mais comme je devais encore de l'argent à l'école, je pouvais pas être diplômé. Mais sans diplôme, je pouvais pas travailler. Et <laughs> donc, euh, le seul moyen, c'était d'entreprendre, <laughs> de faire ma propre activité. Et voilà, et ça a commencé comme ça. Ça a commencé Alors, comme ça. ça. a commencé comme ça à travers quelle entreprise Raconte-moi ta première expérience entrepreneuriale très rapidement et surtout euh, ensuite comment est-ce que tu te dis mais en fait oui, c'est ça que j'ai envie de faire toute ma vie. En réalité, euh, la première chose qu'il faut dire, c'est que comme je t'ai dit tout je suis né et j'ai grandi dans un environnement où l'entreprise c'est la norme. Chez moi, tout le monde est entrepreneur on n'a pas de fonctionnaires ou de ou bien d'employés dans la famille. Tout, quasiment tout le monde est entrepreneur. Mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, mes frères, tout le monde fait la même chose. Et mes grands-parents. Donc, donc en fait, c'est ce qui est normal pour moi, a priori. Ouais. La deuxième chose, c'est que euh, c'est qu'en fait, ça totalement par hasard. Donc, j'ai un stage au bureau de mise à niveau qui se passe bien et qui se finit. Je suis censé chercher un emploi après, je me dépêtre dans, dans les problèmes de ma vie, comme tout le monde en a, j'imagine. Et puis, ben, je rencontre euh, Mohamed Ardo Diallo et puis Alpha Sirekan un soir. Euh, ils venaient voir mon père pour en fait qu'il les conseille et voilà dans leurs affaires. Et puis euh, on se lie d'amitié. Je connaissais déjà un peu Alpha, je connaissais pas Ardo. euh, parce que nos parents avaient des relations, Alpha donc. Et puis, ben, au final, on se lie d'amitié. Je découvre un peu ce qu'ils font. Ils, ils, développent des sites web, ils font des stratégies digitales. Je m'y intéresse un peu. Et puis, ben, je vais les voir et je leur dis, les j'ai envie de faire ce que vous faites. Et, et, et puis, j'ai envie de devenir associé, mais j'ai pas d'argent. Par contre, il y a un truc que je sais faire. <laughs> je suis un super So now, voici ce si j'arrive, tous les deals que j'arrive à vous rapporter, tous les deals que j'arrive à vous rapporter, vous me donnez 20% oui. du revenu, et ces 20%, je ne les prends pas en cash, vous me les redonnez en part de votre boîte. Et Alors là, c'était une stratégie déjà extrêmement innovante à l'époque. Et puis me disent oui. <laughs> et ils me disent oui. Ils sont chauds. J'étais à l'époque, euh, j'ai une cousine qui est chef de pub chez Caractère. Je l'appelle, je lui dis, j'ai des gars, ils sont extraordinaires, ils développent des strates digitales, ils font des sites web, ils font des stratégies pour Facebook, etc. C'est déjà en Oui, c'est exactement ça. Et puis, voilà, et puis Caractère, à l'époque, avait déjà beaucoup de budget, de budget de beaucoup de budget marketing. Et puis, je lui demande, qu'est-ce qui vous fait vos sites web, qu'est-ce qui fait les stratégies, etc. on parle de people input, de, etc. Euh, on me met en rapport avec des gens. Je vais voir un peu tout le monde. Et puis à l'époque, les gens faisaient les websites entre millions et millions. Et j'arrive et <laughs> je vais la voir et je vais voir sa patronne. Elle me trouve un rendez-vous avec sa patronne. Je fais une présentation de by et puis je lui dis, oui, ben on peut vous faire toutes vos plateformes à pièces. Par contre, il faut que vous nous en achetiez à la Ah ouais, c'était courageux ça comme move. <laughs> et, et, puis commence comme ça, et puis deux ans après, euh, bon, euh, euh, ça, cette stratégie, plus beaucoup d'autres stratégies, By Feeling est ouais. devenue euh, l'une des premières boîtes digitales, euh, une des premières agences digitales du Sénégal et puis d'Afrique de l'Ouest. Et puis, et puis j'y suis resté deux ans jusqu'en 2014. Alors euh, c'est assez, dingue que tu me parles justement de la manière dont tu as commencé à travailler dans cette première entreprise, euh, en tout cas dont tu as été associé, parce qu'elle est assez innovante, comme je disais tout à l'heure, c'est assez rare. Généralement, les apporteurs d'affaires, si on peut les appeler comme ça, ils repartent avec leur cash, euh, ils cherchent pas à rentrer dans le capital. Ça veut dire que quelque part, tu une vision euh, qui allait au-delà euh, pour lever des fonds, pour se valoriser, etc., y compris euh, l'ouverture euh, du capital. Alors, très rapidement, avant que je ne te pose la question euh, sur l'écosystème et euh, les moyens de financer nos entreprises au Sénégal, j'ai envie que tu nous dises ensuite dans combien d'entreprises tu as choisi ou la vie t'a mené à être associé. Depuis que j'ai... Depuis By Feeling, il y en a <laughs> <laughs> Malik, on va devoir s'arrêter parce que non, désolé, je, vais devoir changer le, le, le, la thématique de cette émission et revenir sur. Mais qu'est-ce qui t'arrive 16 <laughs> entreprises. Oui, 16. Explique-moi un peu la mentalité avec laquelle tu, avances et pourquoi est-ce que justement aujourd'hui tu, penses que c'est important. C'est une mentalité tech pardon, qui est très américaine à mon goût. Euh, ça arrive très souvent euh, aux États-Unis qu'on retrouve des gens qui sont associés dans énormément d'entreprises parce que justement, ils nous ont une vision un peu différente. Décline-nous la tienne. En fait, je suis un... comment on appelle ça je, je, je, suis bon d'en faire naître les choses ou les faire développer. Je suis, très bon dans, penser, voir Les je suis un excellent manager stratégique. Je suis beaucoup moins bon d'un point de vue opérationnel, mais je suis un excellent manager stratégique. Et à chaque fois que je rencontre des gens, et à chaque fois qu'on discute, et à chaque fois qu'on a des conversations, au, euh, mais au détour d'une rencontre, euh, on fit beaucoup avec les gens. Je suis aussi quelqu'un que généralement on aime bien une fois qu'on le connaît. Je suis oui. Mm. très sociable. Et, et puis donc, euh, je construis des relations d'affaires au fil de mes rencontres. Et j'ai à chaque fois quelque chose à apporter. Et donc, euh, je peux aussi tirer profit de ce quelque chose que j'ai à apporter parce que les entrepreneurs me le rendent bien. Donc, mes partenaires me le rendent bien, en part, en argent, etc. Parce que euh, quelque part aussi, ça va nécessiter euh, le courage aussi du risque de perdre. Alors euh, on est dans une émission qui s'appelle Cauchemar d'entrepreneur, me dis pas qu'à chaque fois toutes ces aventures ont été positives. Est-ce que quelque part aussi, euh, c'est pas, il n'y a pas eu de revers de la médaille, on va dire, où tu t'es dit ah, est-ce que j'aurais dû faire ça ou est-ce tu as perdu de l'argent, tout simplement, euh, le flair n'a pas été forcément bon. Est-ce que c'est Oui, absolument. La première, c'est pas mal fini. Ça a été une expérience extraordinaire. By Feeling, dont je parlais pour ne donner que cet exemple, c'est fini euh, avec moi qui en sort sans aucune valeur. On, ça s'est très mal passé avec mes associés à la fin. On a à peine sauvé euh, notre relation amicale. Et, et, et puis, euh, c'est quelques années plus tard, aujourd'hui, qu'on arrive à en parler sereinement, je pense. Et puis, voilà, et puis donc à avoir des relations normalisées, mais ça a été assez dur. Dur, par exemple, pour By Feeling. Sur les je crois qu'il y en a 9, 9 qui sont mortes. Il y en a deux où, j'ai dû exit, mais sans aucune valeur. Et il y en a euh, cinq qui existent encore aujourd'hui. Est-ce que tu as eu à perdre de l'argent en tant que tel Oui, énormément. Euh, ma dernière, euh, entité où j'ai perdu beaucoup d'argent s'appelle Payol. On a dû perdre euros. Euh, oui, oui, oui. oui. Ça, fait, partie du risque, à ton avis, quand on aime l'entrepreneuriat, il faut accepter aussi que ce soit une option. Oui, absolument. En, euh, réalité, à chaque fois qu'on démarre une nouvelle entreprise, il y a quelque chose qui me marque, c'est qu'à qu chaque fois, je me dis, j'aurais jamais cru que ça aurait été aussi difficile et que j'aurais vécu des situations que j'aurais, like, que j'ai cru avoir dépassées. Et, puis, il, s'agit simplement à chaque fois de mettre le même degré d'effort, le même degré d'engagement, d'être prêt à engager de son argent, de son temps, euh, de son équilibre familial, euh, de sa santé dans quelque chose en quoi on croit et qui en vaut la peine à cause des gens avec qui on le fait généralement. Généralement, c'est pas le projet, c'est les personnes avec qui on est dedans. Et, et, et puis, euh, euh, voilà, qui nous empêche de nous arrêter. Et, et puis, euh, oui. voilà, mais donc on perd, on perd, mais on gagne aussi. On gagne beaucoup. Absolument. Alors maintenant dans le vif du sujet parce que maintenant je, je pense que nos auditeurs euh, connaissent un peu ton profil. Euh, moi j'en ai appris d'ailleurs beaucoup et, j'adore cette vision du monde, j'adore cette façon de faire. Euh, je voudrais qu'on parle maintenant de l'écosystème en général. Déjà, quelle est ton appréciation de euh, la manière dont l'argent circule euh, au Sénégal en ce qui concerne l'entrepreneuriat, les investissements, etc. Euh, si on parle de l'entrepreneuriat en général, c'est-à-dire on parle vraiment, de manière très ouverte et qu'on ne parle pas de l'écosystème technologique en particulier. L'entrepreneuriat en général. formel comme informel, et qu'on n'écarte pas les informels, euh, <laughs> qu'on les considère, l'entrepreneuriat au Sénégal va extrêmement bien les gens entreprennent et gagnent beaucoup d'argent. Il y a une quantité incommensurable de cash et d'argent qui circulent. Et il y a euh, beaucoup de beaucoup d'opportunités qui, qui se réalisent dans nos environnements. Maintenant, euh, on, on, ne capture pas, on ne regarde pas ces opportunités, on n'en a pas une vision claire. Pourquoi Parce qu'on Parce que nous, les gens trop éduqués, euh, like the corporate world, oui, euh, euh, on ne regarde pas notre économie réelle. Euh, l'ensemble de ces énormes commerçants, énormes industriels, énormes importateurs, l'ensemble de ces jeunes entreprises euh, qui sont dans tous les domaines et dans enfin les domaines d'activité et qui font des choses exceptionnelles et on regarde l'autre partie, les de nous qui <laughs> sommes allés à l'école et qui faisons du business en français. Mmh. Qu'est-ce que ça changerait de, de, les voir, de voir toutes ces, toutes ces autres euh, strates hein, de, la, de la sphère économique euh, Qu'est-ce que ça changerait finalement à la, à la dynamique générale Pourquoi tu dis on, on, ne les regarde pas, on ne les voit pas euh, j'ai, euh, Dans mon parcours, j'ai eu à, à Euh, euh, j'ai eu un distributeur, grossiste de produits télécom et grossiste de produits FMCG, sucre, café, lait, etc. Grossiste, comme grossiste ou Bopukoy. Mmh. Et, puis, je, je, je, pense que c'est le moment où j'ai le plus appris. Pourquoi Parce que c'est le moment où j'ai appris qu'au Sénégal, on pouvait lever plusieurs milliards de francs CFA sans signer de papier. Il suffisait d'aller voir quelqu'un qui vous faisait confiance et qui <laughs> vous les donnait. je suis déjà allé voir quelqu'un ouais. qui m'a donné 160 millions en cash parce que je lui avais donné ma parole ouais. et qu'il avait confiance en la personne euh, la consommation de nos ménages était drivée par les par Internet, et pas par Auchan, ou bien le Modern Trade, euh, général. Euh, et mmh. puis que j'ai compris pourquoi l'ensemble des structures les plus grandes de notre environnement avaient un pied formel, donc la façade, et un pied informel dans la distribution, dans leur relation avec le marché. Mmh. Euh, euh, Aujourd'hui, si on considérait notre pays comme il est vraiment, avec nos relais et, et, puis notre économie de la distribution comme elle est structurée, euh, nous arriverions à, en fait, nous arriverions à allier tous nos programmes de développement à notre économie mmh. réelle. Donc, ouais, à, à ce tout... c'est dire connaître nos réalités mieux, Exactement. mieux les appréhender. Aujourd'hui, je donne un exemple. Tous les programmes de développement, les programmes de financement qui existent au Sénégal ne s'adressent pas à, à l'entreprise Euh, d'un monsieur qui s'appelle Amadou Diallo et qui est euh, distributeur de produits FMCG euh, Par contre, Tout à fait. Par est le plus gros distributeur de produits FMCG d'Afrique de l'Ouest. Ouais. Mais il est dans, mais il est sur aucun radar. Et il est condamné à un plafond de verre, justement parce qu'on ne le considère pas. C'est très vrai ce que tu dis. Absolument. Et, et, puis ça, tu peux le retrouver les strates, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'industrie et la transformation, que ce soit dans commerce qui est le moteur de notre économie que ce soit dans les services. Partout, les informels sont les plus nombreux. Comme on dit, ils sont 97%, on est, 4, on est on a l'impression ouais. que c'est nous les plus importants et finalement tous les financements sont dédiés, ou en tout cas pour l'essentiel euh, et pour les gros montants à ces 3% là. J'ai envie de te poser une question là-dessus. Euh, quelque part, est-ce que ça voudrait dire à ton avis qu'au lieu d'essayer de pousser euh, cette économie de l'informel à se formaliser, euh, ce qui peut être pour certains une barrière parce que c'est quand même dans des langues qui sont compliquées, de documents qui sont peut-être pas à certains. Est-ce que ça voudrait dire qu'on devrait développer des mécanismes de financement plus importants que le microcrédit pour ces gros industriels-là ou ces gros distributeurs-là qui aujourd'hui, euh, comme tu le dis, euh, sont incontournables dans, l'écosystème. Oui, absolument, absolument. Ce que, ce que je pense, en tout cas, ce qui a... Euh, euh, effectivement, nous devons aller... Je ne sais pas comment dire ça. Euh, nous devons aller vers nous-mêmes. C'est-à-dire, nous ne sommes pas... Euh, et, et, et, et, puis c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que nous considérons euh, qu'il y a une scission entre eux et nous, quand nous sommes pareils, tous sénégalais. La même langue, on parle tous le Wolof. On a les mêmes cultures, euh, les mêmes orientations sociales, les mêmes visions des affaires très souvent. Et en réalité, euh, euh, effectivement, on ne doit pas, euh, et c'est paradoxal de le dire, on doit retourner vers eux. On doit permettre aux gens de faire leur démarche en Wolof. Ça devrait oui. être possible. On doit permettre aux gens de pouvoir euh, je sais pas moi, euh, emprunter de l'argent en Wolof, aller à la DEPME e et faire un dossier en Wolof, aller au bureau de mise à niveau et faire un dossier en Wolof, aller à la DER et faire un dossier en Wolof. ouais. euh, ou trouver des voies et moyens d'accueillir ces gens. Mmh. Et de quelque niveau qu'ils soient, que ce soit ceux qui commencent, comme ceux euh, qui, sont déjà arrivés, donc voilà, mais au plus haut niveau des affaires. Euh, que ce soit Shaolof ou bien même en arabe, parce qu'en réalité, la plupart d'entre eux sont éduqués, mais pas en français, ils sont éduqués en arabe. Mm-hmm. Parce qu'ils sont allés au Dara. Mm-hmm. Ils ont quand même appris. euh, oui, on doit se reconnecter à, à nous Et les plus grandes entreprises de ce pays sont les entreprises qui l'ont compris. Prenons la Sonatel. C'est mm -hmm. somme toute une entreprise très moderne, très structurée, etc. Mm -hmm. okay Elles vendent du crédit téléphonique. 87%, euh, je crois pas me tromper, c'est peut-être un vieux chiffre qui date de quand j'étais encore donc de la Sonatel, qui est de 1000 milliards de francs CFA par an, mm -hmm. se fait dans la rue, les boutiques de quartier, qui n'ont eux pas de NINEA. Avec des distributeurs qui n'existent pas. Donc, euh, prenons les grands industriels, euh, etc., milliards de chiffre d'affaires par an. Euh, son chiffre d'affaires, il se fait à la boutique du quartier. Comment avec ils... les petits distributeurs dans les quartiers. Comment est-ce qu'ils intègrent euh, le petit distributeur qui a son tricycle et qui va livrer 15 boutiques dans la zone Comment est-ce qu'ils descendent down there Comment est-ce que Dolima vend son produit dans les boutiques de quartier Les entreprises qui ont compris qu'elles devaient intégrer like, notre économie réelle sont celles qui fonctionnent le mieux. j'ai une question à te poser par rapport à nos modes euh, de levée de fonds, mais aussi euh, finalement à la mentalité que peut-être aussi ces, euh, ces entrepreneurs-là euh, ont ou n'ont pas. Alors tout à l'heure, tu nous disais, euh, voilà, tu réussi une fois à lever euh, millions grâce à la parole. Ça, c'est quelque chose qui est très sénégalais, c'est très culturel. La valeur de, de la parole est bien plus importante que celle d'un contrat signé, en tout cas à la base, hein, <laughs> traditionnellement. Ensuite, je sais que euh, certaines entreprises, je pense à Wicari, euh, ont à leur tout début, euh, avant même que ça ne soit Wicari, levé des fonds grâce à un système qui est très sénégalais, qui est celui de la tontine. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne, revient pas à dire que au-delà euh, d'aller chercher nos financements voilà dans toutes ces structures qui vont nous demander nous d'être extrêmement formalisés euh, des documents qu'on ne comprend pas et qui sont encore une fois euh, aux, aux, distributeurs du quartier, aux distributeurs de la zone. Euh, Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faudrait aller beaucoup plus vers ces mécanismes de financement traditionnels qui peuvent aussi nous permettre de lever des fonds énormes et qui vont nous permettre de dépasser ce, pla ce plafond de verre Absolument, euh, euh, j'ai dû lever des fonds sept ou huit fois dans ma vie. Euh, Euh, au Sénégal, à l'international, de manière formelle et de manière informelle. Donc, emprunter de l'argent à des banques, parler à des fonds d'investissement, avoir du love money de la famille, des investisseurs internationaux, donc des entrepreneurs, ou bien un fournisseur qui décide juste de me faire confiance. Euh, euh, pour revenir à ce que tu disais, j'ai un excellent exemple. Quand je suis devenu distributeur, euh, j'avais un fournisseur, euh, je vais pas dire son nom, mais euh, euh, euh, parce que je pense qu'il aimerait pas, mais le monsieur, après quelques mois de travail ensemble, où je viens, j'achète du produit et puis je m'en vais. Je viens et je lui dis un jour, donc un jeune Bawal Bawal de 29 ans, qui faisait à peu près 500 millions de flux jours dans la distribution. Mmh. Donc c'est un monstre le type. euh, beaucoup plus jeune que moi, mais sharp, très sharp. Mmh. Et puis, voilà, et puis je lui dis, euh, le monsieur s'appelle Khadim, et je lui dis, c'est Khadim. Je peux parler Wolof voilà. Oui, bien entendu. Aïe, bismillah. <laughs> voilà, et je dis, c'est Khadim, Mande. Euh, taille, c'est réseau. Parce que, parce qu'à l'époque, Madame ravitaillait presque mille boutiques par jour. Mhm. ma ne ko sëñ Xaadim dama yore mille boutique koñ yoo xam ni bis bu nekk dañuy rupture te sama capacité jënd jënd produit moo tax bis bu nekk may rupture mais lii mën naa ko multiplier par 10. ma ne ko mhm. sëñ Xaadim man fi mu nekk nii xaalis dama am tuuti xaalis di liggéeyee xaalisu banque bi donc dama indi sama xaalis euh, sam papa dimbali ma jox ma garanti wam ma dem ci banque bi ñu lebal ma xaalis. Mhm. xaalis boobu laay ñëw di jënd produit ci yow mais soo mënoon lebal dina ma arrangé. Mhm. j'achetais entre quarante et cinquante millions par jour. Mhm. mu ne ma ñaata nga soxla. ma ne ko jox ma su ma ko mënoon def cent millions man dina ma arrangé. dam lay jox cinquante nga jox ma cent. Ivetti saa yoo ma joxee cinquante wala quarante. ñaata nga yore fii ma ne ko quarante laa ji quarante millions laa yore mu ne ma saa yoo ma indilee quarante millions ma jox la deux cent millions. deux cent millions nga wax. deux cent millions. waa ji damay ñëw indi ko quarante millions daf la wóolu. signé ma ne ko dañuy signé contrat mu ne ma kayit bi nga may indil de sama kàddu bi ma la jox mu ko gën a yitteel mm. kayit bi mën naa ko signé te nag du ma def. te nag du ma def li ci nekk parce que tënkuma waaye sama kàddu maak yow moo ñu tënk mu woo benn seede seede bi ñëw mhm. ma wax li ma wax mu wax li mu wax donc ñaari seede yi euh, mu ne ma jàllal ci ginnaaw gis diw ma dugg ci ginnaaw ñu tijji coffre bi d'abord ñu jox ma deux cent millions ci produit mais en plus produits yi ñu amul woon ñu génne xaalis jox ma demal demal jëndi ko demal jëndi ko ci diw Mm-hmm. ma yàpp xaalis bi ci saako yóbbu jëndi produit bi <laughs> approvisionné sama réseau jaay ñëw fay ko. Mm-hmm. on a fait ça pendant deux ans. et ça c'est une réalité en fait du du du Sénégal qui n'est pas comme tu le disais tout à l'heure prise en compte dans nos systèmes habituels. non absolument pas effectivement et and guess what. J'ai construit mm -hmm. un agrégateur, donc un produit digital, une start-up, mm -hmm. sur ce modèle. Et cette start-up, mm -hmm. cet agrégateur, était approvisionné par ce monsieur. Voilà, mais donc que ce soit pour la fourniture, donc pour mon funding, et puis cet, cet agrégateur offrait aux boutiques de quartier une plateforme qui leur permettait de distribuer un certain nombre de produits depuis une plateforme unique. Et puis, c'est devenu plus tard un wallet pour les boutiquiers de quartier où ils pouvaient distribuer un certain nombre de produits digitaux, du crédit, du mobile wallet et du payment facture, mais aussi une marketplace où ils pouvaient acheter leur stock. Et je m'approvisionnais chez des distributeurs. C'est un, modèle qui est intéressant. Est-ce que quelque part aussi, il n'est pas extrêmement risqué euh, Et euh, euh, beaucoup de gens euh, de manière un peu informelle et c'est-à-dire pas auprès des banques, etc. Mais le risque derrière, est-ce qu'il n'est pas juste multiplié par 10 En réalité, je pense pas. Pourquoi j'avais un réseau de boutiquiers et je pouvais leur faire crédit. Par exemple, je pouvais faire crédit à 1000 boutiquiers dans la journée. C'est, mmh. Il faut comprendre comment notre société, est construite. Typiquement, quand je vends à un boutiquier euh, qui vend, dans sa caisse, il a une quantité limitée d'argent. Et avec cette quantité limitée d'argent, il doit acheter beaucoup de produits à beaucoup de fournisseurs. Si moi, je veux être son fournisseur digital, il faut que je stick au plus proche de ce qu'il fait. Mais aujourd'hui, euh, le district... Voilà, le boutiquier qui s'appelle Ousmane Diallo et son fournisseur qui s'appelle Amadou Bari. Quand Amadou Bari vient avec son Il lui demande pas d'argent. Il dépose l'argent. Il, dépose les produits et il s'en va. Comment est-ce que ça se fait qu'aujourd'hui, boutiques de quartier au Sénégal fonctionnent à crédit et que personne ne peut leur faire confiance Je suis sûr que dans le quartier où tu as grandi, le boutique qui, y était, il y a encore aujourd'hui. Absolument. <laughs> il y a encore. Ce monsieur, il va pas disparaître avec ton argent. Par contre, par contre, on n'a aucun mécanisme pour lui faire crédit à lui. Mmh. Moi, je faisais crédit à des boutiquiers de quartier et à plusieurs milliers d'entre eux. Et mm. aucun d'entre eux, et, puis ça peut arriver qu'il y en ait un ou deux euh, qui ont des difficultés, mais l'environnement des affaires au Sénégal, notamment l'environnement informel, est tellement construit sur des valeurs de de Wardeg, de Parce qu'en réalité, si tu es connu pour ne pas respecter ta parole, tu ne peux plus faire d'affaires parce qu'il n'y a pas de contrat, il n'y a que la parole. Il n'y a que ouais. la parole. Donc en réalité, on, arrive très bien à fonctionner. Aujourd'hui, euh, je connais des gens à qui on a livré des dizaines de conteneurs euh, de produits textiles, par exemple, sur la base mhm. d'aucun papier qui ont vendu et qui sont venus payer. ouais. qui sont venus payer. Et, puis, on, on, le voit même. Euh, euh, voilà, mais en ce moment, je suis euh, associé, partenaire, donc j'ai mis un peu d'argent dans une boîte qui s'appelle Cori, qui fait du transfert d'argent international. Et Cori marche très bien dans les communautés sénégalaises en Italie et en Espagne. Euh, mm. Maud Moudoui a immigré en général. On a lancé une société de transfert d'argent et on pensait que chaque mois, euh, les jeunes Sénégalais de la diaspora en France allaient envoyer 100, 200, euros à leur famille au Sénégal pour les aider, etc. C'était notre conception du transfert ouais. d'argent. Encore une fois, ce dont on s'est rendu compte, c'est que ceux qui utilisent le plus le transfert d'argent, notre outil, ce ne sont pas euh, les gens qu'on pense aujourd'hui utiliser l'outil. Ce sont d'autres personnes. Ce sont les Modou Modou yi nga xam ni dañuy jaay euh, la vente à la sauvette là dans la rue. tous les jours en fait ils envoient la dépense à la famille tous les jours su ñu jaayee tey wàcc ak 15 euros mm. dañuy yónnee 10 euros yi kër ga. ils fonctionnent de la même manière que s'ils étaient au Sénégal. Au Sénégal, oui. Qu'ils étaient à Dakar et qu'ils envoyaient de l'argent à quelqu'un dans une autre ville ou dans une autre. Euh, Exactement. Dem jaay ambulante wàcc joxe dépense bi il la donne au jour le jour on on sur les appels diw dafa feebar ñu yónnee quinze euros et cetera et cetera et ces gens-là aujourd'hui ils sont très peu bancarisés par contre ils ont tous un compte nickel avec une carte ou bien des cartes prépayées et ils utilisent tout ça pour faire des transferts sur la plateforme Cori. Mm. Et, et, c'est juste. génial. Et tu n'as jamais, tu n'as jamais un problème avec eux. Pour la... Parce que Daïra Mourid Binubok, mhm. là où il y a le compte principal qui transfère l'argent, par exemple, et euh, qui fait les transferts pour les différentes personnes, bien entendu en respectant tous les KYC, etc. Ouais. Euh, mais Daïra Mourid Binubok, nit ñi jomb nañu jël fa xaalisu jàmbur ba pare duñ ko delloo. Mhm. Donc finalement, c'est ériger toutes ces valeurs qui sont des valeurs traditionnelles et beaucoup de gens disent ah voilà on est en train de perdre nos valeurs traditionnelles mais des, valeurs qui existent en général dans la société qui sont transposées par beaucoup euh, dans le milieu des affaires, dans le secteur informel, ériger ça beaucoup plus en système. Et c'est, c'est, c'est, j'ai envie de dire, c'est révolutionnaire ce que tu dis parce que finalement, euh, change toute cette vision euh, du monde de dire non, il faut aller euh, vers le formel, il faut arrêter de faire les choses comme on fait dans l'informel pour changer de système et adopter même des systèmes qui en réalité viennent d'ailleurs. c'est plutôt de dire non, comment est-ce qu'on prend ce qui existe chez nous, ce qu'on fait chez nous, pour ériger ça en système et que ça devienne la norme parce que ça marche en réalité. Et c'est pour ça que l'informel est aussi fort. Absolument. Et il faut surtout trouver le bon équilibre. Ça ne veut pas dire que je ne parle pas à des banques. De temps en temps, elles sont la meilleure solution. Ça ne veut pas dire que je ne parle pas à des fonds d'investissement. Euh, ma dernière entité qui s'appelle Marraine la construction aujourd'hui, j'ai donc un investisseur nigérian qui désirait s'installer au Sénégal dans la construction et avec qui on a lancé cette entité. Mm. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas les choses by the book, mais ça veut simplement dire qu'il faut comprendre notre environnement comme il est réellement et l'intégrer dans sa totalité, mm-hmm. pas y être en partie. En partie. L'ensemble des dynamiques sont bonnes, il faut pas, il faut pas euh, présager que certaines ne sont pas viables ou ne sont pas acceptables. Surtout que l'expérience prouve le contraire. <laughs> ah oui, non, man, en, en, tout cas, mes plus belles expériences, j'ai gagné le plus d'argent euh, dans l'informel. Enfin, pas dans l'informel, avec l'informel. avec l'informel. Malik, parlons justement euh, maintenant de, cet autre secteur en des startups. Euh, parlons des, des, modes de financement dont on parle le plus aujourd'hui, le crowdfunding ou encore commençons par les business angels. Alors je sais que l'écosystème startup, ils disent toujours, voilà, au Sénégal, il n'y a pas assez de business angels et pourtant il y a de l'argent. Euh, les gens qui ont de l'argent, ils vont l'investir euh, plutôt dans les affaires sociales. euh, dans les affaires culturelles ou religieuses et pas assez dans les entreprises. Qu'est-ce que tu en penses C'est vrai, on n'a pas assez d'investisseurs. On n'a pas assez d'investisseurs et contrairement à ce qu'on pense, on n'a pas assez d'argent. Euh, euh, euh, ou, bien on a de l'argent qu'on a, ou en tout cas l'argent qui est disponible dans notre environnement, ne se voit pas comme de l'argent à être investi dans l'écosystème technologique. Euh, Et à ton a... avis, à quoi c'est dû je, je pense à plusieurs choses. La première, c'est parce que euh, nos entrepreneurs, nous-mêmes, n'arrivons pas à expliquer à des, à, à des investisseurs en quoi est-ce que leur argent serait, plus, se, serait mieux utilisé et plus efficient pour eux, avant de l'être pour nous, pour eux déjà, mhm. dans nos entités technologiques, que, voilà, mais que dans un immeuble, par exemple. <laughs> <laughs> c'est très difficile à expliquer. C'est parce que la technologie, c'est encore trop nouveau, peut-être pour ces personnes-là, ou que c'est une génération différente. Pourtant, pas tant que ça. Elles le comprennent quand on arrive à leur montrer. Tout à l'heure, je vous parlais d'un ball qui s'appelle Khadi et qui m'avait prêté euh, à de l'argent à différents moments. Cette personne, quand elle a vu la plateforme que je réalisais, c'est la première à m'avoir dit euh, Ouais, Tal, man, ce birbi de Aujourd'hui, il a effectivement investi, pas dans la mienne, il a, investi dans une et il a développé euh, une des premières plateformes de distribution de produits telco et mobile money digitalisés. Par mmh. contre, toujours avec ses voies et méthodes Bawal Bawal, personne ne le connaît. Mmh. Mais il y est allé. Par contre, il y a vu son intérêt. Il a compris quel était l'intérêt d'y aller. Euh, euh, euh, on, voit de plus en plus des, des personnes qui ont de l'argent regarder notre environnement et regarder notre écosystème. En fait, ce qu'on comprend de mieux en mieux, c'est qu'ils investissent quand ils comprennent. Mais ils comprennent uniquement quand c'est leur métier. Aller chercher un professionnel de l'assurance et vouloir le faire investir dans une plateforme d'agrégation, ça n'a aucun sens. Mais vouloir le faire investir dans une plateforme de e-assurance, donc InsurTech, ça t parfaitement sens. Parce que c'est -ce que, son eh, eh, Malik, est-ce que quelque part justement c'est pas ça la limite Parce que quand on regarde euh, d'autres environnements, euh, je, vais parler des États-Unis par exemple, euh, certaines personnes se positionnent en business angels, en investisseurs, euh, en ne réfléchissant pas forcément à des domaines qu'ils comprennent oui peut-être des domaines qu'ils aiment en particulier, mais en se disant juste ok, je suis ouvert à tout. euh, j'entends les opportunités et je vois quelles sont les opportunités de croissance de telle entreprise, même quand c'est pas mon domaine. Est-ce que justement c'est pas une limite si aujourd'hui au Sénégal, les gens qui sont prêts à mettre des billes, il faut forcément qu'ils comprennent parce que c'est en relation avec leur domaine. Absolument, je pense que c'est une limite, effectivement, mais je pense que c'est pas prêt de changer parce que c'est trop risqué. On n'en maîtrise pas le risque. Et, et puis, c'est dû aussi à la nature de nos hommes d'affaires, à la nature des personnes qui sont riches chez nous. On est dans un environnement où peut-être la personne la plus riche du Sénégal a un patrimoine estimé à 300 millions de dollars. Mmh. La personne la plus riche du Sénégal. c'est absolument rien. On n'a pas beaucoup de riches et on n'a pas beaucoup de riches en... Euh, euh, euh, cash. Les gens peuvent avoir du patrimoine, Immobilier, pas... par exemple. Euh, Exactement, voilà. en actions, en portefeuille, en valeur d'entreprise. Mais on n'a pas beaucoup de gens euh, je sais pas, il faut compter le nombre de personnes qui au Sénégal peuvent vous donner un milliard. Euh, en liquide. En sur une longue durée. Il mmh. faut aussi se rappeler que l'investissement, c'est de l'argent long. C'est-à-dire le développement d'une start-up. Investir dans une start-up, c'est pas investir pour deux mois ou trois mois, ni un jour, ni pour une semaine. Si j'ai besoin de 500 millions pour bon, trois jours, acheter un produit, le revendre et le refaire sortir, c'est facile de trouver l'argent. Si j'ai besoin de millions dont personne n'a besoin pour les cinq prochaines années, c'est une autre histoire. <laughs> c'est clair. <laughs> Quand moi, 500 millions, pour les cinq prochaines années. <laughs> c'est exactement ça le point. On a S'il en a qui nous écoutent, vous pouvez vous manifester. tu vois, on en fait, les surfaces financières de nos hommes d'affaires n'en sont pas là. Mmh. Dans d'autres environnements, comme le Nigeria, par exemple, avec lequel je suis très familier, il y a quelque chose d'assez exceptionnel, c'est que ils sont tellement riches mmh. parce qu'on ne compte plus le nombre de milliardaires en dollars, à tel point qu'il y a un quartier qui est dédié aux milliardaires en dollars. <laughs> Euh, et, puis voilà, et puis des milliardaires Euh, euh, euh, et puis des milliardaires et des milliardaires chandollars, il n'y en a pas en Afrique francophone. Il n'y en a pas. Ça veut dire que des gens qui ont la surface financière et la liquidité pour euh, injecter du cash dans des entités pour 5 ans, il n'y en a pas des masses. Enfin, j'en connais pas beaucoup. J'en connais pas beaucoup. Et ça change tout. Absolument. Mm. C'est une question de culture, c'est une question aussi, comme tu disais, de surface financière. Et ça, c'est bien d'avoir l'œil dessus. Ça permet justement d'éviter de s'attarder sur des choses qui, en réalité, c'est juste parce que ce n'est pas encore possible. Mais parlons de crowdfunding. Aujourd'hui, euh, on en parle de plus en plus ici. Ça fait déjà plusieurs années qu'en Occident, euh, se développe. Et il y a un nouveau modèle de crowdfunding dont on parle euh, euh, aux États-Unis, même pas encore euh, en, en, Europe, c'est celui où euh, on lève de l'argent avec le public, mais en fait en échange de, de parts dans la société. Euh, donc, ok, je fais un crowdfunding, mais en réalité, euh, vous tous, euh, vous avez une part, même si est, elle est infime, de ma, de ma société. au Sénégal, on a encore du mal, sauf pour les causes sociales où il y a quelqu'un qui est malade, euh, on a encore du mal à faire euh, du crowdfunding. Euh, monsieur et madame tout le monde, mettre son petit 10 000, son petit 100 000, son petit 500 000, à ton avis, euh, à quoi c'est dû et comment est-ce que tu vois l'évolution de ce mode de financement au Sénégal euh, je, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je ne sais pas exactement comment, je dois avouer que j'en ai pas une grande expérience, même si j'ai vu euh, une expérience où ça a très bien marché, c'est celle de euh, où ça marche Baicedo. très bien. Oui. Et puis d'autres expériences où ça marche bien, c'est les industries culturelles et les industries créatives qui arrivent à qui arrivent à engager du public. Mais en réalité, encore une fois, c'est une problématique de enfin, dans mon entendement, hein, c'est pas forcément vrai, mais à mon sens, c'est une problématique euh, de capacité de nos entités à, nous adresser au marché de manière euh, efficiente et performante. Mm. Quand on regarde, euh, j'aime souvent prendre, euh, pour exemple, les artistes, les artistes américains. Euh, il oui. y a quelque chose qui me choque, c'est comment est-ce qu'ils arrivent à tout ce qu'ils font, arriver à engager le public, arriver à faire en sorte que le public achète, arriver à obtenir le bon niveau d'investissement, arriver à obtenir le bon niveau euh, de marketing, arriver à obtenir la bonne distribution de leurs produits, etc. Mmh. Et puis, j'ai remarqué, que les gens font souvent des production deals, sur des marketing deals, sur des distribution deals, et que les différents niveaux, et c'est le rôle des labels et des écosystèmes culturels dans la musique, dans le cinéma, euh, dans le stand-up, chez les, chez les comiques. Euh, chaque partie est parfaitement gérée. Ce qu'on va pas avoir, nous, c'est... J'ai vu des entités faire du crowdfunding, mais la première barrière qu'ils vont avoir, c'est l'écho que leur campagne va avoir, qui va avoir, combien de centaines de milliers ou, ou bien de millions de personnes vont entendre parler de, de leur initiative, de la levée de fonds Comment est-ce que la stratégie, euh, like le marketing deal, comment est-ce que la stratégie pour attirer les gens et attirer leur argent est gérée Comment est-ce que cette stratégie est financée Et il ne faut pas oublier une chose. Ce qui marche le mieux en termes de crowdfunding, ce sont des crowdfunding qui ont une base de financement. Ça a l'air absurde. C'est vrai. <laughs> Mais il faut On tout demander, il y a un minimum. Exactement. en plus, investir pour pouvoir toucher toutes ces personnes Exactement. Donc, euh, euh, je pense, j'ai l'impression que c'est une, problème euh, euh, que une problématique d'approche, que c'est une problématique de compréhension de la manière de le faire ou de capacité de la manière de le faire correctement. Et, et, et puis, justement, d'avoir une stratégie marketing qui adresse parfaitement les gens qu'on veut. Qu'on veut, qu'on veut toucher. Mais est-ce que quelque part, on n'a pas euh, les mêmes moyens euh, aujourd'hui à notre disposition, à savoir les réseaux sociaux. Quand on voit les gens essayer de lever des fonds, euh, peut-être sauf Baicedo, parce que voilà, il y a eu une approche assez personnelle aussi euh, je pense, hein, pour, pour, euh, pour cette entité Mais pour les autres, c'est de dire, OK, ben, comme les gens ils font, euh, il euh, y a une plateforme de crowdfunding qui est là, je mets un beau texte, je mets des images, je donne quelque chose en retour et j'essaie de sensibiliser les gens en leur disant, euh, voilà ce que je veux faire, voilà comment ça risque de changer la vie des gens. Euh, c'est les mêmes outils qui sont utilisés. Est-ce que, à ton avis, ça notre public est juste moins réceptif Parce que moi,

effort à faire du côté des entrepreneurs pour mieux parler, donner plus d'écho, mieux présenter les choses, mieux présenter le retour sur investissement, mieux euh, euh, peut-être adresser euh, euh comment je peux appeler ça Peut-être adresser euh, euh, peut-être adresser un public plus large. Ouais. Et, puis peut-être financer un peu plus nos campagnes, de, <laughs> yes, <laughs> <laughs> trouver de l'argent pour faire la campagne, pour trouver de l'argent. <laughs> Mais c'est essentiel. La, chose, la chose que j'ai apprise et qui est fondamentale, c'est que pour lever des fonds, il faut, il faut un peu d'argent. À minima, pour se dégager de son day-to-day -day et pouvoir recruter quelqu'un qui s'occupe du day-to-day de votre entreprise pendant que vous levez de l'argent. Une autre question, Malik, est-ce que quelque part, euh, tu me diras, c'est assez contradictoire avec tout ce qu'on a dit dans cette émission, mais est-ce que quelque part, on n'a pas peur de l'entrepreneuriat au Sénégal Et là, je veux dire l'entrepreneuriat qui va au-delà de celui de la survie, de euh, du commerçant, j'ai envie de dire. Euh, je, je, je, j'investis tant, je gagne tant, voilà mon bénéfice. OK, on est tous entrepreneurs, mais ça règle mes problèmes de tous les jours. Euh, est-ce que Euh, à, à, se projeter euh, avec l'entrepreneur qui dit, voilà, aujourd'hui on n'aura rien, mais dans 5 ans ou dans 10 ans, voilà comment on va se positionner. C'est peut-être aussi ça que les startups font et pour ça, qu'il y a une distance avec le reste de la population. Mais moi, j'ai l'impression que même quand il s'agit d'aller lever du money, de l'argent de la famille, les gens ont tendance à dire Ah, mais est-ce que tu vois pas trop grand Ah, mais ton projet, est à nous pousser vers la sécurité d'un emploi de salarié. Et pour moi, ça, c'est un peu aussi une crainte générale de l'entrepreneuriat, en tout cas dans son sens 2.0, voire 3.0, et qui euh, aujourd'hui limite nos capacités à lever des fonds. Qu'est-ce que tu en penses euh, On a une barrière sociale. On nous pousse plus à aller vers un emploi et on vous poussera à aller vers l'emploi à chaque fois qu'on a chaque fois que c'est un peu dur. Par contre, c'est vrai qu'au Sénégal, il est très difficile de dire je rentre dans une entité qui ne génère pas de revenus pour les cinq prochaines années. C'est quasiment impossible. On n'a pas d'argent aussi long. C'est-à-dire, on n'a pas d'épargne aussi longue. On a, il y très peu de gens, en tout cas, qui ont la capacité de vous dire euh, euh, je peux investir assez pour que vous développiez un, un business pendant cinq ans sans aucun revenu, surtout que vous devez en vivre. Ouais. Euh, euh, euh, nos boîtes sont sous-capitalisées, pas particulièrement, euh, comment je peux dire ça, euh, pas particulièrement, euh, pas particulièrement équilibrées financièrement. On fait tous des gros sacrifices sur nos, salaires, nos revenus, nos vies tous les jours, etc. Et, et Puis il faut à minima faire bouillir la marmite. Donc il ne s'agit pas d'être rentable, mais au moins voilà, mais au moins générer de quoi vivre et de faire vivre l'entité. C'est toujours très difficile de faire financer une entreprise au-delà d'un an de cash burn. L'investissement plus le fonds de roulement au-delà d'un an, c'est toujours très difficile. C'est toujours je, très J'écoutais hier euh, un, podcast, euh, d'ailleurs qui, parle de, de, marketing et de growth, et dans lequel on a invité euh, un, révolutionnaire. je, pense que c'est comme ça qu'on peut qu'on peut qu'on le nommer. c'est l'entreprise, qui s'appelle Feed et qui fait aujourd'hui des aliments différemment. C'est-à-dire, il dit, vous n'avez pas le temps de cuisiner, vous êtes on the go, mais en même temps, vous voulez manger équilibré, votre santé est en jeu, voulez pas manger vous met tous les nutriments dont vous avez besoin euh, dans des bars, dans ceci, dans cela. Euh, ça correspond à des repas et euh, vous n'avez plus besoin de réfléchir. Maintenant, vous pouvez manger ça entre deux rendez-vous. Basically, c'était c'est ça le pitch. Et c'est l'entreprise euh, Malik qui a levé dans les euh, apparemment cinq dernières euh, années le plus euh, d'argent, 40 millions d'euros en France en termes, en tout cas en tant que start-up. alors que pendant toutes ces années, ils étaient à perte jusqu'en 2020. Ils étaient à perte. Et je me suis dit, c'est quand même énorme. Euh, juste deux mois avant la Covid, ils venaient de faire leur dernière levée de fonds. Et oui. Euh, dit, on était à perte, on continuait à être voyait la Covid arriver, on a réussi à lever de l'argent. Et aujourd'hui, on est millions d'argent de, levée. Et on va seulement commencer à faire des chiffres positifs dans 2-3 ans. Je me suis dit, mais ça, c'est là qu'est la, qu la limite, c'est là que se trouve de nos investisseurs. Euh, euh, euh, il y a un, investisseur qui a dit à mon frère qui dirige la startup Corée, you, like you want to lose money until Series D. Ce Ce qui veut dire que vous voulez perdre l'argent jusqu'à la série D. La série D, c'est la sixième levée, peut-être, ou la cinquième levée. Donc, d'abord, on a Love Money. Ensuite, on a le seed. Ensuite, on a une série A, une série B, une série C et une série D. C'est des levées de fonds équivalent à ce que, par exemple, voilà, c'est peut-être même la cession de la boîte à 500 millions de dollars. C'est des levées de fonds à, à 9 chiffres Et puis le gars lui dit Tu veux perdre de l'argent jusqu'à ta série D. And that's the only way the only way you will be a billionaire. You will be a billion dollar company, basically. En perdant de l'argent pendant toutes ces levées de fonds, c'est le seul moyen de t'enrichir ensuite. Et qu'est-ce qui explique cette, vision, cette euh, affirmation Parce qu'en réalité, ce que les gens suggèrent, c'est de dépenser tellement d'argent dans son produit, dans son équipe, dans la compréhension de son marché, dans son marketing pour faire aimer sa marque qu'après avoir levé euh, 50 000 euros et les avoir entièrement dépensés, après avoir levé 2 ou 3 millions d'euros et les avoir entièrement dépensés, après avoir levé euh, non, 50 000 euros, 500 000 euros, 2 ou 3 millions d'euros et les avoir entièrement brûlés, après avoir levé 50 millions d'euros et les avoir entièrement brûlés, et seulement une fois après avoir levé 100 millions d'euros et les avoir entièrement brûlés, on devient une entreprise de taille, de taille et d'aspect du point de vue marketing, du point de vue produit, du point de vue équipe, du point de vue financier et du point de vue des fonctions principales et des fonctions support qui est incontournable. Ouais. So, ouais. Tant que nos investisseurs joueront petit bras, tant qu'on n'investira pas autant d'argent dans nos startups, on n'arrivera pas, ça ne, ça ne ment pas. J'ai un exemple. Je ne sais pas si l'entrepreneur voudrait que je le donne, mais il y a un entrepreneur sénégalais qui fait de la pub dans des bus, sur des mmh. écrans. Mmh. Et il a levé euh, millions, à peu près, après 4 ans de vie, etc. Mm. Et il y a le même entrepreneur qui fait la même chose, une entreprise avec la même marque, mm. dans des taxis à New York. la publicité, des écrans avec de la publicité dessus, et les mhm. entreprises achètent de la publicité sur ces écrans, donc pour les passagers. Il a levé 25 millions de dollars avec un PowerPoint. <laughs> la différence est grande, et je convertis même pas en francs CFA. <laughs> la même entreprise, le même nom, le même produit, sauf que celle qui est au Sénégal existait déjà depuis 4 ans et faisait 100 millions de chiffres d'affaires par an. Et l'autre n'existait même pas encore ou n'avait pas démarré. Un PowerPoint. On n'a pas d'investisseurs. On a des apprentis. Est-ce que c'est pas aussi parce que le marché n'est pas le même et donc finalement les gens se disent ah avec 15 euh, millions 16 millions d'habitants euh, dont allez euh, peut-être 2-3 millions peuvent se payer certains de nos produits est-ce que finalement ça vaut la peine Euh, Est-ce qu'on a vocation en tant que petit pays de millions d'habitants à faire aussi euh, ce, type de levée de fonds, le type de chiffres qu'on peut faire en Europe, en Amérique ou en Asie Mais on n'est pas un petit pays, on est un énorme marché de millions de personnes. On est la CEDAO, sans aucune barrière douanière, sans aucune barrière financière, sans aucune barrière, enfin barrière financière un peu, mais ça se gère, sans aucune barrière euh, euh avec une taxation harmonisée, sans aucune barrière sur le déplacement. Moi, je vais au Nigeria ma carte d'identité sénégalaise. Ouais. Euh, euh, mon partenaire nigérian et moi avons lancé notre entreprise ici, je au Sénégal, et j'ai des activités, je au Nigeria. Ça n'a aucune. Pourquoi est-ce qu'on n'y va pas Non, c'est pas ça. Je pense que euh, euh le, problème, c'est une méconnaissance de nos environnements. Effectivement, ouais. mettre des écrans pour faire de la publicité dans des tatas, secteur très informalisé de, du transport en commun au Sénégal, ça, ou bien en Afrique de l'Ouest, les minibus là, ou les Daganais, ça semble moins sûr aux gens que de mettre de l'argent dans des bus ou dans des taxis new-yorkais. Ce qui n'est pas le cas. Il y a plus de gens qui prennent le bus et qui prennent des Tata et des Ndiagandiaï partout, en, ou bien leur équivalent partout en Afrique de l'Ouest, mm -hmm. mi-pays de Moa au Nigeria et au Ghana, que dans tout New York. Ça veut dire qu'il faut aussi que les entrepreneurs euh, élargissent un peu leur vision et attaquent même des marchés plus plutôt que d'attaquer des petits marchés. Absolument, mais il faut aussi que les investisseurs ne disent pas parce que le marché du transport est informel et puis que c'est et puis que c'est la GIE euh, Touba qui possède euh, le leadership du transport en commun euh, sur Dakar, je vais pas investir dedans. Ouais. Non, que c'est parce que pour en revenir à ce qu'on disait au début, c'est nous. C'est la réalité de notre économie. C'est cette, cette, ce sont ces flux qu'on ne capture pas, qu'on ne regarde pas mm. et qu'on ne considère pas. Donc quand cet entrepreneur dit j'ai un marché de cette taille, on lui dit non, ton marché en réalité il est petit comme ça, mais c'est voilà, mais en réalité on vient de lui parler que du marché qui est capturé, celui peut-être des bus Dakar Demdik et celui du reste alors. celui ouais. du reste, qui transporte toutes ces personnes tous les jours. On ne peut pas dire qu'elle n'existe pas, ça existe. Et puis, on ne peut pas construire sans, parce qu'à partir de ce moment-là, effectivement, aucun de nos marchés n'est intéressant. A répété cette chose plusieurs fois dans sa carrière musicale, l'a très bien aussi réussi quand il a fait Vitamin Water, qui est où, où donc ils sont allés signer un production deal avec une super boîte de production, donc une usine qui fait de l'eau, ou donc ils sont allés signer euh, un contrat de marketing avec des télés et des sponsors et un truc de fou. Mm. Euh, ou, donc ils sont allés euh, apporter euh, le financement de la même manière que s'ils finançaient un album de musique, et puis l'ont distribué de la même manière. Encore oui. une fois, ils sont allés chercher un contrat de distribution avec tous les supermarchés, etc. De la même manière que si ils allaient en fait toutes les plateformes de streaming. Aujourd'hui, tout ce que je fais est breakdown de cette manière. Tout ce que je fais est pensé de cette manière. Et parce que je pense que les artistes y arrivent énormément et qu'ils arrivent à engager les gens. Les artistes et les écoles, les écoles de la Ivy League font la aille à Harvard. La plupart d'entre nous ne connaissons personne qui est sorti de Harvard, nous n'y sommes jamais allés, ne connaissons pas de professeur ou n'avons aucune vue sur les programmes. La seule raison pour laquelle nous pensons que c'est quelque chose de bien, c'est parce qu'ils nous ont dit que c'était bien. <laughs> il faut arriver à faire la même chose avec nos affaires. C'est une très belle, euh, conclusion et j'invite tout le monde à aller regarder euh, Champs. Euh, peut aussi donner des astuces à chacun, d'entre nous dans sa manière de, conduire ses affaires. Malik, a été un plaisir de t'avoir dans l'émission Cauchemar d'entrepreneur. Euh, je suis sûre qu'on aura à faire euh, un autre épisode ensemble, j'en suis sûre. Euh, merci pour le temps et puis encore une fois, bonne chance dans, tes affaires. Est-ce que tu voudrais dire un dernier mot Je dis merci, beaucoup de m'avoir invité, merci de m'avoir donné la parole. J'ai de la chance de pouvoir faire ce que je veux et d'avoir le droit de me casser la figure. C'est une, bénédiction. <laughs> et euh, il faut, la mettre à contribution et c'est ce que tu fais en t'associant à plusieurs startups euh, pour euh, d'autres personnes. Parce que créer des entreprises, c'est contribuer à l'emploi et à donner des chances à beaucoup de gens. Merci Malik. Merci à toi. <laughs> C'est avec plaisir. Merci. à tous les auditeurs d'avoir suivi l'émission Cauchemar d'entrepreneurs. Vous le savez, pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Cauchemar d'entrepreneurs, l'émission. C'est ce qu'il faut taper pour nous retrouver. Il y a également le groupe de support SOS Entrepreneurs pour poser toutes vos questions. Et enfin, écoutez-nous en podcast sur vos applications préférées, Apple Podcast, Pocket Cast ou encore Google Podcast. À très